Baol Médias xibaar yu wér te wóor te leer. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waa mbooloo mi ñu ngi eh, dafa am mbokk mu doon laaj ci wàllu dindi tooke ci yaram ndax mm, yu bëree bëri ci ñuy jëfandikoo moo xam ne ñuy lekk yu ñuy naan wala yu ñuy. nooyi wala fi ñuy dëkkee day am xeeti tooke poson yu bare bari yoo xam ne da ci rax di tabbi ci mm, yarama doomu aadama te loolu day indi wér gi jafe-jafe ci wàllu wér gi yaram yu bare bari sax ne ni sanga koy jàmbar rek te fekk dara defu ko lu may loolu su ko defee mandarga yi nag yi tegtale da nga gis koo xam ne tey liy teg si la ne tooke yooyu mu ngi ci yaram mooy gaaw a sonn lu mu def sonn yaram yi metti rek su yeewoo du mën a jóg loolu bokk na ci yiy gën a tegtale yaram bi da fees del ak tooke wala xesan foo ko fekk mu ngi xesan xesan rek xesan boo xam ne xamul lan la loolu dana koy def waaw surtout wokkutu yooyu nga xam ne mën na ko wokkutu ba mu dagg nàcc yooyu li koy gën a tegtale mooy tooke boobu nga xam ne na ci yaram ñenn ñi bopp bopp yi métti lool yenn jafe-jafe yooyu da am seen bopp yi métti dana koy def moo tax yooyu ñu naa la boo naa ne manqué ndox boo ko gisee rek xam ne tooke yi dafa bëri ñenn ñi daneen dikkee ba jafe seen yaram nga gis muy muy soppeeku yooyu dana koy tegtale yenn yi danay it nga seen karaw karaw yi ci boppam di am jafe-jafe ñenn ñi sax yéen seen yéen cër yi ba dem ba sax dind ci ñoom yàq ci ñoom ay cër te dara dafa ko lu may xeeti tooke yooyu surtout nopp wala bët wala yu mel noonu danga dem ba gis ci ba ci bëñ yi gis nga ko yooyu yëpp léegoo-léeg nga jis koy jafe ñenn ñi sax même lekk jafe-jafe lekk mu rees gi yëpp li leen ko yóbbee yëpp dara dafa ko lu may loolu tooke yu asib yu bon yooyu bëri ci yaram bi noonu ak yeneen ak yeneen ak yeneen yenn mandarga soo ko defee nag yi koy sabab it dafa bari te mucc ci moom kenn daanaka fu ne mëneetu mëneesu ko ba tax faaw di jëfandikoo yi nga xam ne da cee baax it na ci trop ndax bokk na ci li ci gën a bëri fu gis nga xeeti machine yi ñuy jëfandikoo portable yeeg ordinateur yeeg ak yenn xeeti appareil électronique yëpp ba fu mu soo demee ci néeg yi gis nga da ciy fees dell te yooyu mu ngi am ay selil yoo xam ne day tàbbi ci biir yaram di ci def loo xam ne nit ki du ko yëg ni nga mën a toogee téye sa commande fii du muy muy commandé lu nekk fee benn wantiloo bi lay commande wala muy commande commandé bi wala muy commandé rajo bi wala muy commandé kilim bi yu mel noonu yëpp wala ordinateur bi yooyu yëpp gis nga ni nga mën a toogee fii di ko laal loolu tax nga di ko laal doo ko gis waaye noonu lay bëttee ci biir yaram yi di ci yàq loo xam ne nit ki du ko xam day indi jafe-jafe yu bare bare yoo xam ne loolu mën na ko def la caay baax nag mooy di jëfandikoo yi nga xam ne day seppi day génnee léegi toog yooyu ñii it ni leen di dikkee li koy sabab du lu mën na bañ a doon lu waaye gis nga saxaar surtout fi ñu dëkkee ni dëkku taax yi gis nga saxaar si carburant bi oto yi lakk ak waaw machine yi yi ñuy lakk ak usines yi ñuy lakk yooyu yëpp te yooyu mujj ba mujj yàq jaww ji ba nga xam ne tey boo fi nawet doo ko doo ko yëg sax li li fee génnoo fi waaw génnoo fi dem ci àll bi soo génnee dem ba ci àll ba nag dund fa diir ci boobaa ngay gën a xam sax yu baree bari ci lu mel noonu ndax da ngay nekk ci biir dëkk bi di yëg loo xam ne doo xam lan la te soo génnee ba ci biti rek ba nga xam ne nooyeetu la lu rek da nga yooyu yu baree bari bari tey so tey dañ seeram kon loolu yàlla Euh, euh, euh, jafe-jafe la yoo xam ne moom itam day feeñ ci wàllu tooke yooyu di tàmbi ci wàllu yaram yi ñenn ñi li leen ko yóbbu mooy naan yi gis nga ñu jot naan rek paquet yeeg pot yeeg bouteille yeeg yu mel noonu yëpp yu paquet noonu de ko naan surtout yi am gaz ak yu mel noonu naan yooyu nga xam ne dañ koy soppi muy am couleur yoo xam ne kenn xamul luñ ci def yooyu yëpp day yàq kon yooyu it su fekkee léegi nit ki da koy jëfandikoo mooy la sëñ ba waxoon rek naan tey faju rek waaw ku ko mën la bàyyi di faju rek waaye su dul loolu moom mujj gi dana la indil jafe-jafe yoo xam ne doo xam foo koy jëfandikoo yenn it ni muy dikkee mooy surtout yi ñuy lekk nga xam ne dañ koy conserver dañ koy denc waaw mañ ci def loo xam ne mën na koy téye ab diir loolu téye ko diir noonu te du yàqu boo ca demee lu doy waar la loo xam ne baaxul ci wàllu yaram ndax su ko nit kiy jëfandikoo it noonu lay dajaloo ci yaram ba gis nga xeeti jafe-jafe yu bare bari mën na koo jur ba tax na moom itam su deful lu koy génne noonu mën na am jafe yu bare bari yoo xam ne mën na ko dal ci wàllu wér-gu-yaram yenn it gis nga ñam yi ñuy boo xam ne lu wax ne ñuy paqueté noonu ak xeet bu mën a doon nag ñu da ko denc boo xam ci pot wala ci paquet paquet yi wala butéel ak yëpp ñu da ko jëfandikoo yooyu yëpp it day indi jafe-jafe yenn it ci wàllu garab yi surtout garab yi ñuy jëfandikoo gis nga fu mu ne yi ñuy faje mag ñi ci garab yi dañ daan fajoo ak lekk yi di lekk saab-saab bi xam nga dañ daan lekk ci xat bi da daan lekk te yooyu yëpp da koy dindi day dindi façon bi dimb ji yooyu yëpp daqaar bi basaab bi yu yëpp nit dañ ko daan jëfandikoo ci wàllu lekk waaye gis nga fu nii tey yi ñuy jëfandikoo wala ñu ko fajoo fi ci garab yi kenn xamul lan la maanaam dàq feebar bi saxal feebar bi daanaka moom rek laay def benn feebar taxaw nañu indi bombardé ko beneen jàngoro boo xam ne moo ko fay jëlee te saxal fi beneen jàngoro boo xam ne doo doo xam lu muy lu koy dindi fu mu ne boo gisee tawat yi ñuy tawat ni yëpp façon yooy ñoo koy def te produit yi ñuy jëfandikoo di ko fajoo yi ci ëpp ci la te kenn mënu ci génn kon loolu it la cay dimbale nit moo tax ñu baree bari suñ koy defee gis nga suñuy jëfandikoo xeeti garab yooyu ñuy jëfandikoo dana am yenn xeeti garab yi ñu xam nii suñ garab maam yi ñu di ko naan ngir mu dimbal leen yàq-yàq ya xam ne moom la garabu jamono yooyu def su ko yàq-yàq yooyu garab yi cosaan yi di ko dindi loolu it baax na it li koy indi mooy diw surtout ñam yi nga xam ne day am diw diw yu baree bari yoo xam ne kenn xamul diw yooyu it ci gën a bëri jaxasook jaxasoog yenn xeeti tooke yoo xam ne gis nga la ñuy lekk yëpp daanaka diwul loolu mën na indi jafe-jafe yoo xam ne su ki dul dindi yàlla mën na ko yàlla mën na su ko nit ki dul dundi mën na caa mujj bam tegoo ca loo xam ne yow la ah mën naa mitt ci moom lool kon loolu it bokk na ci yi nga xam ne da koy sabab kon gis nga ko yu bare bare bare ak yeneen yiit yi koy def gis nga eh, bokk na ci gis nga yi ñuy jëfandikoo gis nga yi ñuy raxasoo nii mu li ma wax toujours da ngay reyee feebar bi indi feebar indi ci beneen feebar rek waaw produit yu bari ñu ngi nii di ko seetalee kër yeeg yu kenn xamut te yooyu yëpp mu ngi ay jafe-jafe yoo xam ne moom itam bu la dindilee lii dana ci dugal leneen loo xam ne yow doo xam lan la yooyu yëpp gis nga ko ba ci xeet yi ñuy sangoog yu kenn xamut yi ñuy diwoo surtout diw yi ñuy diwoo fu mu ne kenn xamul luñ ci def yu ci baree bari du nekk naturel ndax day mel ne ni nga bëgg rek man laa def li nga bëgg jox li nga bëgg ci saas yooyu yëpp day indi jafe-jafe yoo xam ne ci wàllu yaram ah su ko nit ki dul dind mën na koy mujj indi ko ngaañ boo xam ne sax yaakaar na du yegg foofu kon gis nga ko loolu yëpp xeet yi nga xam ne tey bokk na ci yi nga xam ne tey day indi ay tooke ci wàllu yaram su nga defee yi koy salal nag li ci jiitu ndax eh, cër yi it yàlla def na ci cër yu bari yoo xam ne mën nañooy xeex tooke yooyu lu mel ni foie bi da koy xeex muy génn lu mel ni pomme bi da koy xeex gis nga tis li ak tëf li yëpp ngay gis yëpp loolu rek la waaw lu mel ni rein yi euh, roño yi da koy def lu mel ne bill bi waxtaan woowu it da koy def yooyu yëpp dañ koy dindi ndax bu nekk du nag loolu sax doomu aadama yi ni ko noon mm, mara day taali waaye yàlla bind na leen def ci loo xam ne tey yooyu xeeti tooke yu ndaw ndawaan yooyu yëpp yooyu yëpp nañ dañ koy segg ba mu génn yi jaar ci tuur ndox mi yi jaar ci fa ca des yi jaar ci yenn bunt yi ñuy génne yëpp ci doomu aadama yi jaar fa génn waaye su baree génn bëri gi nag yooyu dañ ko dul alternative faaw nga def lu ko dimbale ci ñu man a jëf li ñuy jëf ñoom ba yooyu mën a génn loolu nag bokk na ci di naan ndox lu bari naan ndax lu naan ndox lu doy lu mu niiw ñaar ñaari litre ci bis nit ki mën koy naan ba ñett sax su ko mënul day jëm jëmantu doo ko naan wenn wayaas waaye da naan daanaka ñaari waxtu ñetti waxtu yu ne nga am loo naan ñetti waxtu yu ne nga am loo naan noonu ngay def ba naan ko ndax soo ko guuxee benn yoon it ne ko tëf loolu ci saa si du am fu mu taxaw ci saa si lay buraat génn te génn ko muy génn sax mën a dem ba génnee loo xam ne sax bokku ci woon mooy yu gaaw yu bari yooyu loolu kon mm, nay naan lu doy ndax suy naan lu doy mën na koy tuuru ndox tooke yooyu génn mën na di ñaqit took yooyu di génn lu tax lu ci gën a am solo naan dox googu moom ñaareel ba it muy lekk fruits ak légumes ndax yooyu ñu ngi am ay ferñeent yoo xam ne surtout fibre yooyu daa mën a royal yenn xeeti graisse yooyu nga xam ne day ànd ak tooke ba mu génn waaw reesal ko ba génn bu dul loolu it gis nga jafe-jafe lekk mu rees yi ñuy jàmbat yëpp affaire boobu lay mujj indi waaw lu mel ni pataas bii baax na lool ci xeeti lëjum yi mu di ko jëfandikoo lu mel ni laaj mu di ko jëfandikoo surtout laaj sax laaj lu mel ni soble rawatina soble boobu bokk ci li muy jëfandikoo ba ci kaane verte bi kaane salade boobu baax na ci tomate noonu carotte noonu nawe noonu concombre noonu yi yëpp bu koy jëfandikoo ci wàllu lekkam ci légumes yooyu kooku da koy dimbale trop trop trop ci génne xeeti tooke yooyu ba ci lu mel ni kii wàllu fruits it noonu pom moo ci gën a gën a gën xorom baax ci lool ma banaana noonu xeet yi nga xam ne daa safit yu mel ni ki orange pompalimousse mandarine limon surtout limon rawatina limon yooyu yëpp it rawatina xaal yooyu yëpp ma boo ko dajee xaal nag moo ci gën a gën a kimaan moom day raxas te day génnee day raxasam set kon yooyu it bokk na ci yi nga xam ne tey ki mën na koy jëfandikoo ci fi mu ne te ma bañ caa sonn ndax su koy jëfandikoo loolu xaal boobu ak yi may wax day raxas dimbale may kàttan rein yi may kàttan it foie bi ak poumon bi ba mu mën a def li mu war a def ba tax na jafe-jafe yooyu yëpp dootu ko amati su ko defee ba tey lu mel ne que tàggat yaram it noonu lu mel ne que dox kay dox ab diir dox trente minutes wala une heure temps dikk lu mel noonu yooyu it koy jëfandikoo ndax dina tax cër yooyu ma waxoon ak rein yi ak Euh, foi bi ak fëma euh, bi am kattan ñoom itam ba cawarte boo xam ne dina tax ñu jëf seen liggéey li ñu war a def ba mën a génne took yi yëpp génne ko ci bit ba ci ñuy lekk ni sa lu mel gerte yeeg yooyu yëpp ndaamaraas ak façon yooyu ñuy yëy waaye bu dee gerte sax bu dee nekk gerte ci ab buñ xorom déedéet na nekk loo xam ne duñ ko xorom waaye buñ ko xoromee rek dugalaat ci leneen loolu it kon gënut la gën mooy ñu bañ koo xorom yi ñu doon xorom noonu moom itam te duñ ci def dara duñ ci def lenn lu koy teeg lu koy denc subaa yooyu itam yu baax la lool yu mën a dimbale nit ki ba euh, cër yooyu mën a jëfandikoo lañ jëfandikoo ba génnee wàllu toog yooyu bokk na ci li koy gën a dimbale ci wàllu garab yi bari na bari na lool surtout limon limon limon moo xam doom bi la ndox mi wala wala wala wala xobi wala juróom-ñaari xobi limon tàngal litre ndox sotti ko ci bàyyi ko sedd ma ne ko naan par kaas saa yu lekk lu ko gën ci génnee toog yooyu bariwul waaw baax na ci trop te jëm yu yëpp mu jaar ci tuur ndox mu génn boo amul xob yi même doom bi noonu rek benn doom bi képp mën na ko mën na ko jëfandikoo ba jant bi so waaw su xëyee jël benn genn wàll gi paccal ko ci kaasu ndox rek def ci ndox ba mu kii mu naan ko fees su mu goonee balay tëdd mu jël kaasu ndox noonu paccal ci genn wàllu limon ba naan mu tëdd loolu bu ko defee bu yeewu dana gis ni dana tuur ci ndox loo xam ne lu bare bari xeeti jafe-jafe déchets yooyu yëpp tooke yooyu yëpp day tax def taw fe ba mu génn a jàmm yenn jafe-jafe yu na am yow di yaram yi metti yooyu yëpp mën na dañ mango xobi mango yi nii noonu noonu la ko mënee lu ko man lool du itam juróomi xobi mango rek juróomi xob nga tàngal litre ndox moom sotti ko ci waaye mu sedd nga de jël par kaas lu bam sa lekk loolu lu ko ci génne toog yooyu moom jéggi na dayo na ko trop béer na garab gu ñuy wax béer moom itam noonu xob yi noonu la ko mënee moom moo xam ne da ko def sungu sax di ko suy ci li may lekk wala sax mu di ko tàngal ndox nga ba loxoom rek sotti ci léegi bu seddee mu naan lu baax la lool ci génne xeeti toog yi ba ci matt matt yi sax jaan bu mattaan sax lu bare bare ci lu mel noonu dañ ko daan toggal mu di ko jëfandikoo wala ñu def ko sunguf mu di ko maq di ko naan te loola day génne tooke yooyu ba mu set wecc persi noonu la ko mënee tàngal ndox daggate ko boole ko looy lekk wala nga tàggate ko tàngal ndox sotti li tax ndox bàyyi ko moom boo ko ma dara waaye day setal sax reñ yi nga xam ne tey ñuy segg wet yooyu ñooy segg tooke yooyu ba moom mën a jëf loolu ba tax lépp di génn te suba dootu am benn jafe-jafe moom persi boobu ngun ngun noonu noonu la ko mënee juróom-ñaari xob wala fukki xob moom itam nga tàngal ndox def ci di ko naan par kaas naana it noonu noonu la ko mënee bisaab bii ñuy naan bu xonq bi moom it noonu ba ci bu weex daqaar bii ba tey jiw daqaar toujours bu ree ko naan te bañ sax saf ba mu jéggi rek lu yem rek yooyu yëpp bokk na ci nga xam ne day raxas loolu day génnee am na garab gu ñu wax njamatit lu ko man lool lool lool njamat waaw moom itam su amee ci xob yi rek nga buloo tàngal ndox sotti ko ci day raxas xeetu graisse yeeg xeetu cholestérol yooyu jiw yu bon yooyu waaw xeetu suukar yooyu di yëg sax ba yi waral tension xeeti jafe-jafe yi waral wokkute yeeg yooyu yëpp bu amee njamat moom itam di ko def noonu di ko naan yàlla mën na koy defal tawfeex ba su yooyu yëpp day saafara ak yeneen ak yeneen ak yeneen xëy na dañoo seet yi gën a jege rek ñu wax ko noonu Baol Média xibaar yu wér te wóor te leer